dëggantaan rafetlu na li liggéey te wàññi coow moo ma gënal wax ju bari non eh, may bu bees non sama kat bu comme ça bi ma ne nangu moo liggéey di ci tapalee bëgg am ndam dëkk war a toon ku wax nga teg ko ci àndam xanaa jëf lu mu néew néew moo ma gënal wax di bëri tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan ma ñëwaat sama gars yi liggéey liggéey liggéey bëri sax na muñu taay liggéey waaw dëgg dëgg dëgg taan moo naa leen kii liggéey dawaa ñu coow moo ma gën a bloc memory. you own your life. waaw waaw. your life belong to you. no one liberty for you. sa dundal. dafa ñaaw barke dafa ñaaw dafa wàllum Bamba jiw ba Bamba ñëw ñëw ko ñu sàkk ko daal dafa ñaaw. dafa ñaaw bi laa dafa ñaaw. en tant que gën a ànd si comme toi ñoom sàkk ko daal dafa ñaaw. ki nga def ni parce que Alxuraanu Karim bu ko bu ko saaka dalee. les day va, bokk les quoi